département des jeunes. Parce qu'à travers les écuries également, on peut encadrer les jeunes. À travers les écuries, on peut éduquer les jeunes. À travers les écuries, on peut faire passer un message. Mais également, comme vous le savez, ce tournoi de lutte a un thème précis, une thématique précise, qui je pense qu'également c'est une innovation. Donc c'est la première fois que dans la lutte, qu'on puisse euh, avoir une journée avec un thème. Et le thème d'aujourd'hui est lié à l'évolution un peu un thème d'actualité qui intéresse tous les Sénégalais. C'est lié naturellement à la sensibilisation des jeunes pour un usage responsable des réseaux sociaux. Et de ce point de vue-là, je pense, euh, par le canal de la lutte, on peut sensibiliser les jeunes, on peut sensibiliser les Sénégalais et leur dire que les réseaux sociaux sont des outils de communication, de dialogue, d'interaction entre citoyens, entre Sénégalais, mais ça doit être fait dans, je pense, dans des règles donc de, de, de, cordialité, dans les règles de discipline, d'entente, de, mais également de solidarité, mais également que ça soit un outil pour préserver nos valeurs, pour préserver l'unité nationale, mais également pour préserver la cohésion nationale. De sorte que nous en profitons pour lancer un appel à la jeunesse, lancer un appel aux acteurs du numérique pour leur dire nous avons aujourd'hui un outil puissant, un outil indispensable dans la vie économique et sociale, mais également Cette outil également peut malheureusement être utilisé à des fins qui peuvent être souvent de tensions ou bien source de, de, de conflits. Et je pense que c'est l'occasion pour nous de sensibiliser tout le monde. Chacun a une part de responsabilité dans cela, mais également se réjouir de la qualité de nos infrastructures numériques qui permettent à chaque citoyen aujourd'hui, je peux dire, de s'épanouir sur le net, mais également ça doit être accompagné d'une sensibilisation en face un usage responsable, un usage utile. En tout cas, c'est ce message-là que je souhaiterais lancer, partager avec les Sénégalais, qu'ils sachent qu'aujourd'hui, nous avons une de renforcer regrettable. C'est pourquoi nous profitons de l'occasion, Siri, vraiment pour lancer cet appel et vous remercier. de l'opportunité pour nous donner aujourd'hui, grand frère, de partager avec les Sénégalais cette préoccupation majeure, mais également en profiter pour lancer des messages de sensibilisation à l'endroit de la jeunesse, mais également à l'endroit de tous les acteurs du numérique du Sénégal. monsieur le ministre ci olof ndax sensibilisation bi am solo ñaax gune yi ak ndaw yi ndax lut xale yi bëri ñoo koy def. waaw tàmbali euh, ci yonente bu tedd tey euh, ñun dundaat euh, li nga xam ni mooy ambiance bi nga xam journée bi nga xam ni tey suñu mag suñu xarit c'est le euh, promoteur du devenir national donc suñu mag Sidi Diakhaté tey jagleel nañu ko suñu ko jagleel la nag jagleel ko président Idrissa Seck la jagleel ko président de la république la ndax man seen njaboot la lu ñu ma lu ñu ma dénk peut-être moo tax tey Sidi am xalaat boobu mais nag lii du gulet ndax bi ma nekkee maire bi ma nekkee président département at bu nekk président Sidi ñëw na proposé ma drapeau ñëpp rappelé wu nañu drapeau bi ñu defoon au niveau de Magnan Soumaré muy bis yu am solo yooyu nag tey dañu ni nañu profité ci lutte bi. comme loolu niñ koy defee amul feneen ñeneen. nationale boo xam ne ñëpp lay regroupé pour faire passer des messages utiles et yàlla dogal na dafa am benn di waxtaan soxna ndax xalaat ñii di ci jaay ñii ci def commerce donc ñii également di ci xamante di ci ay ay yu rafet yu baax mais également am na ñoo xam ni dañuy yoo xam ni woon xamuñu woon euh, euh, wàññi orma nit wala xamuñu woon saaga nit wala xamuñu woon xas nit ba tax na koy tey dañuy profité ci occasion boobu rappelé waat jeunes yi rappelé waat sénégalais yi xam ne moom lañ ñu xamee woon moom lañ ñu doon dëkk sutura dëkk orma mais également dëkk boo xam ne ñi dañu bokk ndey bokk bàyyi dañu am cohésion sociale loolu nañ koy lan lañ koy renforcer